auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irahmaani irahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi wa sallama mbokki jullit yi ñuy seetaan ñu ngi ànd ak yéen fii ci Amérique New York di waajal xew-xew bu rëy muy xew-xewu lislaam boo xam ne dañ koo jagleel Serigne Touba fii ci Amérique le 28 juillet atum ren mii nag mooy tolloog ñaar fukkeel ak ñett ñu dippee ko Serigne Saalihu Mbakke waaye nag xew-xew bi am na xew-xew bu rëy rëy boo xam ne moo nekk ci biir moo di jumaa ju rëy ju ñuy waajal fii ci Amérique rawatina New York te Cheikh Mouhamadou Mourtada joxe woon ci ndigal ngir ñu waajal ko ñoo ngi ànd ci ndigal loolu ak sunu xalif général sëñ Sidi Mokhtar Mbacké mi nga xam ne mooy yeesalaat liggéey bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadou Mourtada doon def di tasaare lislaam ci àddina si joxaat ko doomam boobu ñu ànd ak moom muy sëñ Maamoor Màkke ñoo ànd ak moom ci liggéey boobu kon nag tey jii solo soosu moo tax tey ñu toog fii ñu ànd ak ki nga xam ne moo di sëñ ma Massamba Diop moom itam moo yore wàllu collecte de fonds bi itam dina leen wax xaalis bi ñu soxla nan la toll ak ñan nañu woo ci liggéey boobu ñu ngi ànd ak sunu imaam Bachir Lo dina leen wax solo si nga xam ne moo nekk ci wàllu googu di fàttali rek li nga xam ne moo nekk ci sunu kanam liggéey bu rëy boo xam ne bii mooy moom la ñuy waajal le 27 ci weer wii ñu jublu muy fundraising boo xam ne bii dañ ko lëkkale ngan gi nga xam ne moom la defal fii Cheikh Mouhamadul Mourtala léegi nag liggéey bi dañ ciy woo bokki jullit yëpp rawati nag ñi nga xam ne dañoo yaakaar Serigne Touba ak fu ñu mën a nekk tàmbalee ko ci ki nga xam ne mooy président de la république maître Abdoulaye Wade ak Souleymane Dene Ndiaye ak membre de gouvernement am ñëpp ak fépp fu ambassadeur nekk te di jullit ñu ngi la ciy woo képp ku yaakaar sëñ tubaa nag moom woote bi moom dafay mel ni obligatoire la ci yow ci nga def ci sa jëf teew ci te teewal ci soo mënta teewit nga teewal la nga xam ne moom nga am def ko ci liggéey sëñ tubaa bi ngir liggéey bi dañ ci am ndigalal Cheikh Mouhamadul Mourtala te dañu am pas-pas bu tol ni tollul ko ni liggéey boo xam ne bii maanaan bu tolu ni jumaay tubaa ci dayo itam dana ko jege ngir sëriñ tubaa day da day loo xam ne lii lu gën a rëy ci réew mii nga xam ne mooy Amérique moo gën a rëy ci réew yi war nañ fee defal sëñ Touba jëf ju rëy joo xam ne ji ci lislaam kenn ku ne xam ne ni moo gën a rëy ci li ñu jëfal sëriñ Touba furut fii kon nañu góorgóorlu bu baax kenn ku nekk foo mën a nekk ak loo mën a am nañ ko ci def te xam ne jëf la joo xam ne ji sëñ te bañ lay tudd taalibe yi moom nooñu leen noonu leen ci wooye kon yaakaar nañ ci seen teewaay ak seen jëf ku mënta teewit nga dina sa jëf teew am nañu ay numéro compte yoo xam ne yi maanaam danañ ko joxe fu fi mën nekk te mënoo teew si nga joxe la ngay dugal nga dugal ko ci numéro compte yooyee kër gi nag dafa toll ci ni jumaa ji ñu bëgg toll na ci ñetti million ak téeméeri junni juróomi téeméeri junni ci dollar taalibe yi nag jàmbaar lañ lool ndax liggéey nañ fi dajale nañ fi ba toll dajale fi lu toll ci six cent cinquante mille dollars loolu nag tax na ab tàmbali la boo xam ne bii bëgg nañ bala ñoo jàll bis bi nga xam ne mooy le 27 te ñu jagleel ko Serigne Saliou Mbacke ci biir ngan gi ñu am ci li nga xam ne li mooy mottali kër gi ngir liggéeyam Serigne Touba kat ab tàmbali waaye àggale ga sëriñ tubaa ko yor kon nan góorgóorlu bu baax baax képp ku yaakaar sëriñ tubaa ak foo mën a nekk nga def ci sa jëf bokk yi kon dégg ngeen woote boobu nga xam ne moom lañ woote ci luy taxawal juma te kenn ku ne xam na ne juma lu am solo la ci lislaam ndax mooy barab bi nga xam ne moom la suñ borom wane ne mooy barabam ci kaw suuf mbool nag mi ngi ko waxee ci wa anal masajida lillah loola nag li muy lim lim nuy wanaa ba tey it ci wax jooju moo ne suñ borom da ko tudd dafa wax jumaa yi kon loolu nag baatu jumaa yi bi mu wax dañuy won ne lépp luy jumaa rek loolu moomeel ak suñu borom la moomeel googu mu nekk moomeel ak suñu boroom nag tax na képp koo xam ne yaa ngi koy taxawee suñu boroom am daraja yoo xam ne moom la la jagleel loola nag mu ngi ko waxee ci innama yaamuru masajid allahi man amana billahi wal yawmil axir wa aqama salata wa ata zakata walam yaxsha ila allah muy képp koo xam ne yaa ngi taxawee jumaa suñ borom takkal na la darajay yow kat bokk nga ci ñi nga xam ne yow moom wéetal nga ko ci xam ne mooy sa borom bokk nga ci ñi nga xam ne itam yaa ngi taxawee sa wërteef sa diggante digganteeg moom bokk nga ci ñi nga xam ne itam buñ xoolee sa xol dara lu ci nekk lu dut fees dara lu ca fees itam lu dut ragal suñ borom loola nag moo tax ba suñ sëñ Sëriñ tubaab mi nga xam ne léppam dafa doon suñ borom moo tax moom it mu ñaan ci suñ borom ne lépp loo xam ne moom it am na ko ci kaw suuf loola mi ngi ñaan suñu borom defal ko ko juma loola moo tax mu wax ne waccaal masaji waccaal buyooti kullaha masajida yaa naafiyan man la yakunu sajida kon nag yaakaar naa ne woote boobu ñëpp danañ ci wuy si kon yàlla nu yàlla yóbbu ci bis ba te jox nu kàttanu mën caa def kon mbokk yi yéen a déggandoono woote bi ñu ngi ciy woo ñëpp kon nag euh, loolu moo tax ñu am délégation yoo xam ne ñoo ñuy taxawul ci wàllu lépp loo xam ne dafa jëm si ci liggéey bi ki ko jiite foofu ci Sénégal nag mooy sénateur Moustapha sëñ Kumba Jaxate sëñ Isaa Saaw sëñ Njoogu Jóob sëñ euh, Ablaay Caam ànd ak géwélu sëriñ Touba Ablaay Mbay Peex kon nag euh, compte banque bi képp koo xam ne am nga yéene dugal ci dara it mi ngi doon 398 278 81 Citibank jërëjëf mbokk yi kon ba beneen yoon